après ñoom ñëpp gis nañ témoignage yi xarit ak seen i moromu étudiants yu ñu mm. bokkal chambre mbala yu ñu bokkal en fi ñoo jóg porter le combat avec euh, en collaboration avec le collectif des amicales de l'UCAD ñu wone carrément ne ñii certificat d' inscription ñoo ngi nii ce sont des étudiants régulièrement inscrits donc bàyyi leen seen caaxaan yi te ngeen bàyyi leen. ñu ñibbi euh, rek ay ñoom dara amu ci dara amu ci te man li tax bëgguma sax euh, gën a wax ci côté dégâts matériels yi am biir université parce que aussi mon humanisme ne me le permet pas en tant que aussi à l'œil nu quand même ñun loolu gis à l'œil nu waaw loolu à l'œil nu mais aussi gis nañ à l'œil nu état bo xamné ni tay tey dafa ray plus de 70 jeunes donc tay mëno am état bi ray na soixante jeunes mbala lu ko ëpp emprisonné plus de 1200 jeunes ci côté bien aussi muy ay dégâts yu grave grave grave yu extrêmement grave seeni waajur seeni mbokk seeni xarit ñooñu ñëpp tey. mais est-ce que perte perte bu rëy boobu nga bëgg a taxaw ci ay oto bu ñu taal benn bisu kut bu ñu taal benn sessi bu ñu taal benn classe benn amphi chapiteau fac lettre bu ñu taal euh, euh, fac droit bu ñu taal benn classe bu ñu taal sesti benn bus bu ñu taal bus bi taxul euh, terewul jàng am. Hmm. en fait chapiteau fac euh, droit war na reprendre euh, direction coude de tal mën depuis les dégâts ñuy <coughs> parce que tu euh, parce que tu minimiser bi xam nga hmm. <coughs> lorsqu'on compare on compare deux choses tu suñ la par exemple tu dañ lay jaay terrain. 200000 hmm. eh, de c'est parce que donc nga ko comparer ak njëgu terrain normal hmm. buy atteindre ay millions hmm. ndax deux cent mille du lu kon man aussi su ma nee oto bii ñu tal mbala ben anti-chapiteau bu ñu tal mbala bibliothèque bu ñu attaquer dama ko minimiser c'est pas parce que lolu nonu du ay dégâts yu grave ay hmm. dégâts yu grave la mais dama ko comparer à côté ak dégâts yi nga xamné ni suñu état def nako ba causer loolu muy soixante-dix personnes soixante-dix jeunes yu ñu ray ñu ñàkk seeni bakkan ak bakkan ni mu fooree donc boo gisee ñooñu perte seen bakkan yow lii dootul nekk daara. ci yow ba mais bu ko àndoo si état bu Sénégal vu que ni des commissions d'enquête tijji nañ ko si allant dans ce sens ñu war a mën daal di mën déterminer. 2000 euh, la circonstance de tous ces morts parce que si manifestation yi gis nañ fi aussi ay nervis et étant d'autres ñëpp ñu woon si terrain bi est ce que réellement euh, li nga xam ne que Modi di ces morts on peut euh, war nañ leen daal di mën a féetale directement jëm si état bi ak si ak ses forces de l'ordre. 2021 2021 ñaata jeune lañ ci ray hmm. ñu ne enquête am na enquête yi ba tey fu mu mujj dara dara mujj ci. donc buñ ne aussi enquête am na si lii ñun duñ ci xaar dara dañuy xam ne ça va tomber à l'eau donc euh, li am ba am mooy li sénégalais yëpp gis mooy des milices yoo xam ne nii il exerçait auprès des aux côtés des forces de défense et de sécurité hmm. ñooñu tey ñu ne ce sont des milices des nervis yu fay ñuy tiré ci kaw manifestant manifestant yi ñëpp xam nañ ne ci côté nguur rek lañ mën a faree parce que bu ñu faroon ci opposition gis nañ pick-up bu fi var ak euh, France 24 seen émission intox mm. boobu mu nekk des milices yoo xam ne nii dañuy exercer au côté des forces de défense et de sécurité buñ ñu nekkoon ci opposition bi donc dañ leen di arrêter sans hésiter mm. buñ leen bàyyee ñuy def li ñuy def seen i ñaawteef di tiré ci kaw population bi mm. di dàqe les jeunes yor seen i arme ñëpp di ko gis téléphone yi di ko filmer TikTok bi di ko wone bañ mujjee tëj TikTok bi loolu noonu je pense que lu ne fàng la kenn du ko jeex kon euh, ñun xam nañ ne c'est l'état du Sénégal alors qui a causé tous ces dégâts qui nous a conduit dans cette situation am na information boo xam ne itam deb nañu ñu ne les agents du coup mooy centre des œuvres euh, de l'université de Dakar mhm. disent niet pour la réouverture du campus social et pose des conditions nee li nga xam nekk modi agent yi nee nañ ci si ouverture bi fi posé wuñu sen ay conditions. waaw euh, maa ngi gis euh, le directeur du COUD. mom hmm. waxon na ci avant lolu mais li ñu wax mo li mu wax moy li conseil académique de l'UCAD bi waxoon. moy hmm. que ni dañuy réunir le conseil va se réunir le 31 octobre. alors que ñun li ñu bëggoon ñun les étudiants. te euh, <laughs> il faut ñu waxtaan ak yéen mooy ñu dellu. ñun li ñu bëggoon mooy ñu dellu dee octobre. dès octobre mais xam nga mën a dellu nag il faut ñu poser condition yi parce que lii. <laughs> non <laughs> lii léegi saa ne li fi xew du fi xewaat. waa li fi xew du fi xewaat. bu fekkee ne la mu defoon defatu ko. Hmm. gis nga mënoo di jaay nit ñi doole. di leen dóor ba pare ne leen bu leen jooy bu leen manifester ne li ñuy def metti nañu. Hmm. donc non c'est impossible si Foggé, condition discuter aussi si continuer ci euh, wax li hmm. day ko alors alors euh, justement euh, mais ñu gis ni li que Touré 2024. Mm-hmm. dem ci li que élection peut-être suñu premier face à face est-ce que Sénégal tol euh, li nga xam nekk moo di jamono ji nga xam ni itam peut-être suñu ay nouveau yéeg na ba ñu war a mën li nga xam ne que moo di jigéen fii si réew mi est-ce que c'est possible là. oui fofu euh, damay sawar pour tontu ci hmm. réponse bi cette cette question pour tontu ci question bi cette question assez pertinente. Hmm. d'abord dama koy tontu ci ñaari forme la première forme moy euh, la première réponse moy wax ni Sénégal paré guñu pour fal jigen hmm. déjà sax moy insulter hmm. la maturité des sénégalais ngane Sénégal paré guñu pour fal jigen man dama japp ne rek da ngay insulter la maturité des sénégalais. Hmm. parce que buñu faté dans les localités bo démé ci commune yi ñaata commune biir Sénégal Le jigen di jité ken mënu ko compter et pourtant avons voté pour ñooñu même configuration bi au niveau national beaucoup intégré. mais on parle ay on parle chef d'état non dama lay wax ni li ma bëgg expliquer c'est simple. moy gis nga un yoron hmm. def ci ay parfum diko jaay bo échantillon jox ma. Hmm. échantillon bi ni mu mel day na parfum email mel hmm. boo aussi commune le département dafa qu'un échantillon pour Réo. par exemple tay bo la commune de Mbour mbala Kaolack mbala et bi par exemple hmm. D'ing fa tu tay njaago d'ing fa fek jola ding fa kon ci côté ethnie d'ing fa fek ñep ding fa fek wolof bi ak bi jël côté religion Ding fa fek julit, ding fa fek catholique ding fa fek lenen. la diversité. Ding fa gis toute la diversité. Hmm. qui constitue le peuple sénégalais. kon tey waa ñii bi tey bu ñu d'accordé pour voter jigen, au moment où ay góor kon nañ candidat mais ñu gis ne ko jigen ki mo up xam-xam peut-être mbala mo up taxawaay pour reumi, mbala moo gën ñu ko bàyyi góor kon wa nyi bi buñ leen aussi Aminata Touré ñu gis ko gis Amadou Ba xamné Amadou Ba ñaata scandale lañ ko tuddu teg si Amadou Ba est un euh, est un troisième mandat camouflé de Macky Sall té doyal nañ sëkk ci Macky Sall ak nguuram waa ñii bi du hésiter pour fal Mimi Touré ah, te noonu lay démé nak ci Sénégal yëpp mm. parce que tay ñii bi boobu day nekk un échantillon bu ñu def étude bi mm. té dama gëm né Sénégal yëpp non lañuy doxé lool c'est benn c'est une réponse parmi ñaar yi mala wara war a jox mm. deuxième bi moy fiñ ñu toll nii Sénégal dañu nekk ci situation bo xamné ni ñaar la hmm. ñi nga xam ne nii tey ñoo bëgg changement bëgg justice bëgg démocratie bëgg jaay doole bi jóge fi bëgg luubal bi jóge fi bëgg Ousmane Sonko ak ay militant wam ak xoqatal yenn sénégalais yi pare pour xeex injustice hmm. jóge fi hmm. xoqatal boobu ñu teg ci ñëw kaw ñoom Ousmane Sonko jóge fi ñu libérer les détenus politiques tey bu ñu amee Aminata Touré mu nekk ku jub nous proposer un programme pertinent. Mm. di injustice bi. nous ne duñ ko parce que jigéen la donc nañ obligé joxaat Amadou Ba mu def continuité <laughs> ñun xamatuñ ci dara parce que aussi nit ki da ngay xam li nga une chose et son contraire c'est clair alors ñi naan euh, Aminata Touré dafa mm. bokk bëgg opposition waaye fois F24 wootee dina dem mais instant bi euh, ma ni kon benn tànk mi ngi biir Yewwi peut-être dans les prochains jours su ma nee Aminata Touré rejoindre Yewwi duñ ko duñ ko weddi alors ñi naan aussi euh, c'est euh, pour dem jëli li nga xam ne que moo di Ousmane Sonko booral boobu ba tey mi ngi manifester son soutien envers lui contrairement ñee ñi fekku leen si parce que DGE moom Aminata Touré bu mu jëlee parrainage ba pare Sonko du doon lijjanti entre autres entre autres alors est-ce que tey euh, de 2024 tey jàpp ngeen ni c'est tout Ousmane Sonko parce que sans que ngi doon de ba tudd libération Ousmane Sonko avec libération des détenus politiques mm-hmm. peut-être pour gagner il y a comme que dit empathie des Sénégalais est-ce qu'aujourd'hui li y a une récupération purement politique Il y a Benno belle waa PDS wax euh, nekkul di confirmer mais de plus en plus parce que instant bi moom mm-hmm. mu roog soo bi am na seen diggante Pastef D'abord, je vais damay éclairer lu ndaw door a mm-hmm. attaquer question F24 ak yewi Askan gi du mm. est une coalition politique. F24 est une plateforme de lutte contre le troisième mandat d'abord et l'injustice. injustice. non xaaral ma euh, euh, réformer sama question. Mm-hmm. F24 ngeen bokk.

loolu ñi ci ëpp mooy wa APR ak wa Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne nii tey Mimi da leen a mujjee traumatisé da leen a tiital ci élection yi ñu jëm parce que xam nañ li muy peser ak rôle bi mu nekk di jouer actuellement moo tax dinañ fexe lancer le discrédit ci moom pour ne lii muy def c'est pas sincère mais ñun ñi nga xam ne xam nañ la présidente Aminata Touré ak tous les sénégalais yi nga xam ne nii ko militante engagée des droits de l'homme hmm fonctionnaires fonctionnaire Nations Unies le département droits de l'homme hmm. kon ñëpp xam nañ taxawaayam ci xeex injustice ak hmm. euh, violer la dignité humaine nekkoon aussi élève Mamadou Dia képp ku xam histoire politique au Sénégal xam Mamadou Dia tey Mimi euh, une défenseuse de la dignité humaine nek kuy xeex injustice ak képp ku ñuy jaay doole sans distinction nekkul Ousmane Sonko moo ko ci intéressé mbala kee mais nit la ñuy jaay doole. ci kanamu sénégalais yi ñëpp teg ci seen bët mu taxaw di ko jàppale. Hmm. loolu warul a bett dafa hmm. nekk seulement un prolongement de ses convictions et de son engagement politique. Hmm. te képp ku xam Mimi je pense que foofu nga ko waroon xaar c'est en allant vers la mer que le fleuve euh, reste fidèle à sa source tay bu gisee ab Ousmane Sonko ñukoy jaay doole ba sénégalais yépp gis ko responsable am au niveau des JPS dans chaque localité ñu leen di jëli seen biir kër yi di leen yé gudi di leen tecc ci ñoo xamné duñ def mm. sax dara parfois. Mm. Mimi taxaw di leen xeexle di euh, militer fu mu taxaw pour tay ñu libérer ces plus de 1200 détenus politiques. libérer sen leader Ousmane Sonko nga xam dañ ko japp ci lo xam ni ay tapalé la. ñi yaakaar yéen di ngeen si porox ndoolu